jamono ji nag jëmale ko ci njiitu réewum Sénégal waa mille vingt 2024 ña ngay xam ne nag lu jëm ci wàllu communication téléphonique yi nag lépp la ñu ko aaye te loolee lépp nag politique rek moo ci daal di lalu looloo waral nag ñuy sàkk ñu daal di koy bàyyi ci nu mu gën a gaawee moom Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi di 24 heures na jamono ji kay nag yëf yaa ngay gën a tar ci kaw Bassirou Diomaye Faye coalition Diomaye président nag jamono ji am nañu njàqare nag waral ñuy yëglu nag ci opinion nationale ak internationale ña ngay sàkku ci état bu Sénégal ngir mu jël responsabilité am nag ba mën a yokku kaaraangeem moom Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi ñu ne dañuy wéy di ko bàyyi muy des ci kaso bi lu jëm ci wàllu wote yooyee nag ñuy waajal fii ci réewu Sénégal yéenekaay yu bëri dellu siwaat nañu ci Le Quotidien yëglekaay ne lu mu ci mënti doon daal bëri na ay lees waxut nag lu jëm ci wàllum double nationalité bi ñuy laam-laamee ci candidat bi di Rose Wardini nag coalition Diomaye président di sàkk ñu daal di may liberté provisoire seenub candidat ngir mu mën a battre campagne Abdou Mbow ak Lamine Thiam ñoo assemblée nationale bés bi le jour daal di ñuy xamale tey jii nag kii di Rose Wardini mi nga xam ne rek candidat la ci jongante njiitu yi ñu jàpp nag jamono ji coow lu topp na ko ci lu soxal nag double nationalité bi nga xam ne rek moom la ñuy laam-laamee bi nag dellu siwaat ci kan mooy Rose Wardini nu mu def nag ba échappé juróom-ñaari sages yi nag jëm ci wàllu double nationalité ma taxawaayam ci biir fameem ak xeex bi nga xam ne rek moom la mës di amal yër leen bi la yëglekaay lu jëm ci wàllu double nationalité ñeel candidat yi ca la ñuy des ba tey yëglekaay bi di enquête ne coowal Karim Wade jamono ji nag moo làq lépp li ci gannaaw laam-laamee gi ñuy laam-laamee nag tuxal lu jëm ci wàllum élection présidentielle yu 2024 te ñu tënk ko nag ci article 52 bu constitution bi nag yéenekaay bi dellu suwaat na ci Sud Quotidien xam le ne nag jamono ji waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Parti démocratique sénégalais nar nañoo jël nag risque yu mag a mag Ndiogou Sarr di enseignant chercheur ci wàllum droit public ca UCAD ma ngay àddu jëmale nag ci pexe yi nga xam ne rek ñu ngi koy lal jamono ji nag ngir bëgg tuxal élection présidentielle yi yi l'observateur di ko feelu ne jamono ji kay dañuy caaxaan rek di fooweeg seeni xel waaye jafe-jafe dëggantaan moom la ñu fi nar a indi yéenekaay bi ne bés bu ñu ñàkkee amal élection yi nag ndax natt nañu dayoo bi nga xam ne rek nar na koo jur ci wàllu politique ak wàllum social Alioune Ndiaye ak Moundiaye Cissé naka noonu Ibrahim sekk nag ci jamono joojee ña ngay yëglu bu baax a baax nag jëm ci li ñu nar a tuxal lii nga xam ne rek moo di élection yi keneen kuy yëglu nag ci yëglekaay bi di Vox Populi mu di professeur Moussa Diaw ni Macky Sall nag bés bu dof dofloo ba bi ñu ko jàpp nag dina ko réccu ci giirug dundam ba tey nag moom professeur Moussa Diaw ma ngay samp ab laaj ne ana lan moo nekk ci ginnaaw ba ñu fas yéenee tuxal rek lii nga xam ne moo di élection présidentielle yi nañu jéem a sauver Sénégal te mooy nag bàyyi élection yi ñu daal di koy amal nag ci date bi ñu ko jàpp lu jëm ci wàllu doxalinu élection présidentielle yi ndax président Macky dafa nara a laju nag ci loo xam ne moom président Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade daat nañ koy réussir loolee la bi daal di samp nag ne bés bu amee daal dina doon guléet moom président Macky Sall nag doon ki nga xamante ne nii moo njëkk reporté ay élection ci date bi ñu ko jàpp doonte ni sax nag ñu ko fi jiitu moom dundu nañ xeetu jafe-jafe bu nekk ci ay élection waaye nag mësuñoo xalaata dàq nag ay élection présidentielle la enquête yëglekaay ne lu mu ci mënti doon daal pëccëxoo gi tàmbali na nag diir bi ñu taxawalee nag commission d'enquête parlementaire jëmale ko ci kaw juge yu conseil constitutionnel Walf Quotidien nag dellu suwaat ak Thierno Alassane moom nag di candidat à la présidentielle yi ma ngay xam ne nag ni jamono ji ab coup d'état constitutionnel moom la ñu bëgg amal ci réewu Sénégal Sall ma ngay xam ne nag ne constitution bi nag mayu leen benn yoon ngir ñu daal di tuxal nag dat bi ñu jàpp ngir amal ci élection yi yéer leen bi la yëglekaay jamono joojee nag Le Soleil yëglekaay yi di xam le ni nag waa police jamono ji nag gën nañoo yokk seenub doole jaarale ko ci ay formation yoo xam ne rek ñu ngi koy amal jëm ci ñoom réew mi people nag tey Fodé Sarr la doon dalal artiste comédien bi nga xam ne rek jamono ji nag ràññeeku na lool ci personnage yi nga xam ne rek ñoo yëngu ci wàllu théâtre nag yër leen bi la yëglekaay ci waxtaan wu yaatu wi mu séq ak Anna Thiaw tàggat yaram